ci seen émission bi ñu dëpp Ëttu Murid ten di ko amal alxemes di jot bu 20 tegalee fan fanweeri minute di jiital ci nuyoo boobu kii yàlla teg ci bopp yoonu murid di Seex Muhammadul Muntaxa ñu ñaan sun borom mu gën ko fee yàggal gën a doole ak wéram waaye di fàttali ko ciy ñaan jàmbaari lislaam ji fi nekkoon di Sëriñ tubaa Seex Saalihu Mbàkke ñu ñaan ngërëmul yàlla di wàcc ci moom li fekk doomu aadama ngi dox ci kaw suuf di siyaare ak a ñaanal mbooleem njabootuk Sëriñ Tuubaa gépp ak seexi Sëriñ Tuubaa yëpp mbokk yi tey ñu am mbégte di jaajëfal bu baax a baax eh, ginnaaw bu ñu dalalee émission bi weesu di Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Aliou ci cosaanul tindoo di ak ya ca aju yëpp ngeen dégg taxawaayu rafet yi nga xam ne am am na ko ci ñoo ngi jaajëfal mbooleem téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ne ci biir réew mi ak bitim réew mbokk tey ñu amaat mbégte dal ak yéen seen émission ëttu murit ëttu murit tey nag ñu dal ci benn ëtt boo xam ne damay man ne mooy ëttu murit yëpp ëtt boobu mooy ban mooy ëttub Touba ca kanam di daayira Nuuru Daarayni ñu dal ci benn ëtt ci biir ëtt yooyu mu di ëttu commission leeral commission leeral ku ne xam na ne commission la boo xam ne ci kaddu Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa la bàyyi ko waaye dafa bokk ci ñaani Serigne Touba yi nga xam ne moom la ñaanal boppam Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa moo doxal boppam di wër dëkk bi boo wax ne dëkk bi dafa lëndëm te dama bëgg mu leer fekkoon na Serigne tubaa waxoon ne waccalhu maskana xuruji min sulam li noori wak fi hanhu kulla man salam Serigne Touba moo njëkk a ñaan yàlla mu dàq ak lëndëm indi ak leer ci dëkkam bi di Touba kon yaakaar naa ne muy lëndëmug biir nag ak goog biti kon bu sëriñ Muntaxa waxalee bopp na dama dëkk bëgg dëkk bi leer te eh, Touba ca kanam jóg ngir lépp loo xam ne seriñ Touba wax na ko ci Matlabul Fawzayni te muy pàggu teef bu war a jëm si Touba Touba ca kanam gàttandu ko indil ko seriñ Touba loolu moo tax ñu jógoon ci commission boobu ñu di ci ñaanal nag ak a ziyaare fab sunum nuyoo ak sunum yaa teg ko ci loxol ki nga xam ne mooy jëwriñ ji di sëriñ Habibullahi ibnu Cheikh Mahamadul Fadal Mbacke suñu ko nuyoo nuyu magam alhaaji sëriñ tàkko mbàkke moom cheikh mahmadul fadal day mel ne yóbbaane na mbooleem njabootuk sëñ mbàkke mor anta sali wala njabootuk maam maharam gi nga xam ne ñu ngi ci biir daayira nooru daare ni Touba ca kanam waaye di fab beneen nuyoo di ko teg ci loxol président Abdou Fatah mi nga xam ne 2020 moo jiite woon daayira nooru daare ni Touba ca kanam wutu woon sëñ Fallou Ndiaye ci boppu euh, euh, ba euh, bépp daayira bi waaye 2021 itam ak njubam ak yitteem moo tax ñu renouvelé waat ko eh, tegaat ko ci bopp liggéey bi ñoo ngi fabaat am nuyoo di ko teg ci loxoom ngir mu yóbbu leen ñu ko ci mbooleem commission yi nga xam ne ñoo seq eh, tubaa ca kanam ñu fegoo ak suñu doom eh, sëriñ Xaadim Dieng expert sëriñ Xaadim Dieng expert yaakaar naa ne lu ëpp ci liggéey bi ci wàllu ndaw ñi moom moo leen di jiite di ànd ak ñoom di ndaw loo xamante ne bii day bàyyi barabam taal ay otoom di lakk gaaswaalam di yàq ay nelawam ngir lan ngir liggéeyal sëñ Touba ci dëkkam bii di tubaa ci kanam te loolu mooy xitma te ku ne xam ne na ne xitma Serigne tubaa nee na suñu demee ba yowmal xiyaam da ngeen dégg kaddu goo xam ne day jóg di woote naan ana ahlu xitma yéen ñi nga xam ne yéen a doon liggéeyal yonente bi alayhi salaatu wasalaam te daan ko jaare ci Serigne Touba sunna ñoo ngi nii ñu ne yéen gaaw leen tabbi àjjana na kenn du leen isab loolu kon moo tax yaakaar naa ne ku fab sag ndaw jox ko Serigne Touba Serigne Touba yoral la sag mag kon bala may jàll ci jataay bi damay bàyyi ak Serigne Khadim yi expert mu nuyoo ak bokki taalibe yi Serigne Modou euh, Samb dana ñëw ñu su ko defee ñu ànd nag dugg ci biir commission leeral bi nga xamante ne bii eh, ñoo ngi ko ñoom ñu ngi ziare bu baax a baax eh, Serigne Balla Mbodj eh, di kenn ci ñun bokk ci commission leeral waaye bokk ci dongay tër bi yi nga xam ne jaare nañ ci loxoy Serigne Saliou kon sëñ Xaadim bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Touba ca kanam Nourou Darayni ñoo ngi nii ñëpp di jël nuyoo bi di koy teg ci loxol sëñ bu Mbàkke mu jàll leen ko ci kilifa yi Euh, ginnaaw loolu nag may nuyu sama mbokki taalibe yi waaye ni ma mën a def dama koy jàllale ci président Abdou Fatah Gueye mm-hmm. bu ko defee mu jàllale ñu ko ci ñëpp nga xam ne ñoom lañ bokkal liggéey bi mm-hmm. euh, di profité nag di ci yan bu bees bi nga xam moom lañ ko yan ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey Serigne Touba euh, ñu gis pastif bi nga xam ne mi ngi koy def ànd ko ak mbooloo mi ñuy ñaan Serigne Touba taxawu leen sàmm leen ba yan bi nga xam ne yan nañ leen ko ci liggéey bu bees bi nga xam ne moom lañ tàmbali 2021 bi boo ko defee suñ borom jàpp ne leen ba lépp loo xam bëgg nañ ko ñu mën ko def comme niñ ko bëggee. Euh, jërëjëf euh, Serigne Khadim jërëjëf mbokki euh, téléspectateurs yi ñu jaar baax a baax Serigne Mafari njaay mi nga xamante ni bii ku ne xam ne ne moo jiite woon leeral ànd ak Serigne Fallou Ndiaye ak Serigne Cheikh Amar ak mbokk yi ñu ko daan àndal yëpp mbokk yi xam nga ne dëkkub Touba bi tubaa ca kanam bi mu jógee te niñ koy faral di waxee di laaj lu nu man te di ko def fu ñu xam. loolu yaakaar naa ne seriñ sëriñ Muntaxa waxoon na ne wóor na ko ne li sëñ Touba bëgg ci Touba dëkkam bii di tubaa dana jaare ci loxoy tubaa ci kanam kon bépp murit boo xam ne yaa ngi ci biir réew mi wala yaa ngi bitim réew dafa war a jomb ci yow weer de te si ñaar téeméeri tàbbiwut ci Touba ci kanam ndax lii ñuy bëgg a wax lépp nag nañu xam ne ñaar téeméeri murit yi képp lay doon murit yi nga xam ne ñu ngi jaayante di joxe seen i ñaar téeméer te sëñ dadaa wax ne yan bi lu mu rëy rëy ak teraanga ji lu mu bari bari amoo njëgam waaye am nga njëgam ñu ne ko lan moo tax amuñu njëgam mu ne bu ma leen ko doon jaay du ngeen jaayoon seen àdduna ak seen àllaaxira tax ngeen mën koo jënd ñu ne ko lu tax nga ne am na njëgam mu ne baat benn baat bi muy jar su dee dëgg ci yow ma jox la ko mu ne ko lu muy jar mu ne jaral na ma sëñ tubaa daf lay jaral lu mu la jaral rek sëñ tubaa nee na jëlal loola yaa ko moom kon jaral na ma moo mayoon soxna Anta Ndiaye lim am moo may maam Cheikh Anta lim am moo may maam Cheikh Ibrahima Fall lim am kon mbokk yi faw tubaa ci kanam daf ñuy jaral daf ñuy jaral ñu nangoo génn suñu alal ko ci def daf ñuy jaral ñu nangoo fab sun temps di ko ci def daf ñuy jaral ñu nangu di ñu saaga di ñu xas lépp ngir liggéey sëñ Tuubaa bi ndax mag ñi daan jóge fii kat daa dem ci yéen jolof dañ leen daan dogale te booba dañ daan dajale seen addiya wut seen i seeli kooba defar seen baraay def seen araw waaye teewut ceddo yi dañ leen daan dogale di leen dóor ak a rey am na ñu bari ñu faatu ci diggante gànnaar am ñu faatu diggante fii ak ci yéen jolof waaye lu leen lu ñu doon wuti woon jaral na ma jooju rek moo leen taxoon a jóg inna allaha stara min al muminina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul janna danoo jaayante joxe seen alal ak seen i bakkan ngir buñ faatoo mën a tàbbee àjjana euh, commission leeral bi nga xamante ni moom lañ jóg bokk yi danañ ànd ak suñu caméraman mu wan leen dëkk Touba yi ni mu meloon laata ñuy dugg ci biir quartier yi ngeen xam ne kon dëkk bu lëndëm lañu daan jaar te bokk yi ak lëndëm day indi insécurité xam ngeen ne lëndëm lu ne mën na caa xew sàcc mën na faa dugg doo xam fu mu nekk Euh, def ko ñaaw téef mën na faa dugg doo xam nu mu def yeneen ak yeneen yëfi caaxaan yu baree bari mën naa jure ci ak lëndëm guddi sax bu ma sa jot gone goo bëgg a yónni ci diggante ñaari buntu kër def naa la ñeemoo fi ndax dëkk bi daal lëndëm ndax Touba yelloo na loolu wala yelloo ko Touba yelloowut loolu sañ Touba moo ñaanoon ne yàlla nag ma defal sama dëkk bi mu mel ne madinatul munawwara ak makkatal mukarrama kon yaakaar naa ne ñun ñi dëkkee Touba tey lekk teraangay Touba ji di di di dund xiiwali sëñ Touba yi war nañu Touba war nañoo jaral ba mu mel ne madinatul munawara ndax madina nam mel ña ko fa def jotewuñu seen diggante ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam dara ñun nag suñu diggante ak sëñ rek la taya fi dox moo tax commission leeral bi ñu jógee ginnaaw bu ñu defee daaw ñaari junniy làmp ñoo xam ne loolu tuuti na ci dëkk bi ñu ne ren nañ commencé ñetti junniy lampadaire suñu ko commandé buñ dikkee ñu def ko ñetti xaaj ñetti xaaj yi ñu koy def mooy xaaj bu njëkk bi dañ koy séddale ci li biir biir corniche bi xam ngeen ne Touba daa yaatu du mat sax biir corniche bi waaye beneen xaaju ñaareel bi ñu def ko ci ñaareelu corniche bi su ko defee dana dugg sañcaan yi mën a leeral ci lenn ci mbedd yi ak ci marché yi ñetteelu xaaj bi nag sëriñ bee ñu koy sàkkul boppam ndax xam ngeen ne eh, corniche bu bees bii nga xam ne moom la fi eh, nguur gi def ci njiitul président Macky Sall eh, yàlla na ko yàlla jàppale ci mbas mii ba sunu borom teggil ko réew mi teggil ko Afrique teggil ko Sénégal gépp ci daraje Cheikh Mouhamadul Mountakha waaye ku ne xam ne ne boo jógee gaaraasu Dakar bu njëkk bi ci rond-point gendarmerie bi jël sa ndijoor war a dem gaaraasu Daara Jolof corniche boobu pare na waaye ay làmp amu ci te bokk yi xam ngeen nag corniche boo xam ne oto yi dañuy rombante guddeeg bëccëg ak sareet yi ak gone yi te amuti làmp accident war na caa mën a am te amuti daan yu bari loolu moo tax sëñ Mountakha bi mu ko gisalee boppam mu ne foofu bëgg naa ñu def ay làmp te wut ca kanam génnewaat ñeenti téeméeri làmp yoo xam ne teg nañ ko ab ci wet gi di commande ay poto ngir bu accès ñu def ko foofu loolu moo tax nag daayira Nooru Daarayni tubaat ci kanam bi nu jógee nii la ñu séddalee mbir mi gone yi lañ ko àndaloon ci seen kàddu dana ci jub dañ ko defoon ay xaaj wax naa ko xaaj bu njëkk bi dañ ne e, nañ ko séddale e, yóbbu ci e, gaar bu ndaw juróom fukki làmp guy mbind ñu def fa juróom fukki làmp njenne ñu def fa juróom-ñett fukki làmp gaar bu mag ñu def fa juróom fukki làmp Kër Ñang ñu def fa téeméeri làmp eh, bala may jàll eh, damay ñaan sama caméraman mu indil ma xale yi ni ñu doon demee ci biir terrain bi recensement yu guddi ni ñu doon recenser làmp yi nga xam ne bu ñu dugg ci koñ kenn du xam dugg nañ fa déet duñ jaar ci kenn ñooy defal seen bopp recensement yi nga xam ne amut lu ñu naan ségrégation da ciy am ñooy xoolal seen bopp ba xam ne fii lëndëm na fii amuti lamp kon damay ñaan sama caméraman mu tegal ma image boobu ba nit ñi gis ne niñ doon séddale ak maandu rek lañ ci jublu woon yaakaar naa ne suñu àndee ak suñu réalisateur da ngeen gis ne gone yi nañ doon def recensement ci biir quartier yi wal tusbitan fi jamaatan tuqiim as-salawaati al-xamsa yaa akim wa najjinaa min sari haaza samani wa sari xayri wa والتقنا سر نزار والنور وسر إليس وكل سجود والجل والدجال في سوداني في زرق والمغرب والبيدان وسر ما في الأرض طرا والسماء من زائر وباطن اختتما يا لطيف يا كريم يا جليل حامل جميعنا بلطفك الجميل وكن لنا كل مجاد وفلاح ووفقنا لصواب وسلام وتغرنا بفعل ما أبقى والتكفنا عن فعل ما أبختا ولا تكن مبتليا منها هرا بما ليس يتيح يا سمان وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاعة بجاه سليم وجاع من منيب في عبرنا مثله ولم نجيد محمد الأفضل خلق الله بلا تردد ولا استباع هل يصلي أبدا غير الصلاة بها نرافق الخيار والصغار وأبلنا أقصى الذي آتانا وترك ما عن فعل ما نهانا حتى يكون كلنا في الركات مقتديا بسنة وسكنات وناجنا بجاي من دعوى ولتكفي عنا كسبا ولهوا ولتكفنا وما لا يغني بك ودابا أخلنا يا مغني yallaahu maxfiratuka almuammala awsaw min sunubi yaasin mowila yaa baru rahmatuka arja indana min amali nasibu faxfir lana wa li jamiici almuslimina ajmain walmuslimaati kulla xiina kulla ayn wala tuwaaqisna bisuu'i ladabi وبالتجرع وكسر اللاعبين فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في سائر وباطنه وبالخبول وكن معيسنا من الوباء وكل ناس من السماء وكل ما يدور في الأرض وما baynahuma yakun sama waaye gis ngeen ne mbokk yi bi ñu jógee Kër Ñang euh, dem nañ Daaru Xudóos def nañ fa 180 lamp bañ fa jógee dem nañ Paaleen ak Xaayra 2 def nañ fa téeméeri làmp ak ñaar fukk Daarul Minan def nañ fa 140 lamp euh, euh, Daarul Mannaan def nañ fa juróom-ñeent fukki lamp Ndaamaatu def nañ fa téeméeri làmp ak ñeent fukk Touba mosquée def nañ fa juróom-benn fukki làmp ak juróom Guédé def nañ fa téeméeri lamp Sourah def nañ fa téeméeri làmp ñaareelu xaaj bi mbokk yi loolu mooy première xaaj bi nga xam ne moo dugg ci première corniche bi ñaareelu xaaj bi nag dañ ko séddale ñu ngi dem ca mbaay Fall def nañ fa téeméeri lamp eh, jéemul ak garaasu Daaru te def nañ fa juróom-ñeent fukki lamp dara lu dindi def nañ fa fanweeri lamp ndax fa lëndëmoon la eh, eh, def nañ marché Guédé juróom fukki lamp def nañ Madiyaana Mbaar ya foofu nga xam ne bokk yi lu ne dégg nañ ko fa lu ne gis nañ ko fa def nañ fa juróom-ñeen fukki làmp saamuk sëñ Abdou Latif def nañ fa juróom-ñeen fukki làmp Darul Manaan garasu Dakar def nañ fa juróom-ñeen fukki làmp Xaayira 2 def nañ fa juróom-ñeen fukki làmp Daaru Alimul Xabir def nañ fa juróom-ñeen fukki làmp Sexaw ga def nañ fa juróom-ñeen fukki làmp ak 1 kilomètre 100 yoo xam ne dañ koo tëli yoo xam ne Touba Ca Kanam a ko tëli bi nga ko tëlee ba noppi mu monté fa ay làmp dangeen gis image bi waaye itam Eh, bu dee eh, sexaw ga loolu ko eh, ngiraaneen def nañ fa juróom-ñeen fukki làmp kër Serigne Ñaan Diop def nañ fa juróom-ñeen fukki làmp àndaat ak tëli boo xamante ne bi mat na 2 kilomètres nga xam ne dañ koo jële ci tëli bi nekk ci corniche su kër sëñ Baara guy mbind ba yóbbu ko ci tëlib ndindi ba tëli boobu Touba ca kanam ko tëli ba noppi moo def éclairance éclairance publique ba loolu lépp nag seen ñaar téeméer yi ngeen di joxe Touba ci kanam moo ko moo ko def mooy ñaareelu xaaj bi ñetteelu xaaj bi mooy li ma leen waxoon ñeenti téeméeri lamp yoo xam ne def nañ ko réserve ngir bëgg ko def ci corniche bi bokk yi lii mooy li nga xam ne moom la nooru daare ni Touba ci kanam di liggéey mu jëm ci wàllu éclairance publique loolu nag damay bàyyi sëñ Xaadim gone yi nga àndaloon ñu nekk ci terrain bi di daw subaak ngoon ngir bëgg leer googu nga xam ne sëñ Touba moo ñaan yàlla nag ko yàlla dàqal waaye sëñ Muntaxa wax ne loolu ñaan googu tubaa ca kanam laa bëgg ñu gàttandu ko ngir génne ko fi ana ban yëg-yëg ngeen am ci liggéey boobu euh, damay sawar loolu ci laaj bi nga xam ne moom nga ñu laaj ndax nag ñun ay ndaw lañ te dëkk bi rek moo ñu ñor te sëriñ Touba rek lañ ciy seet euh, ginnaaw bi ñu déggee kàddu yi nga xam ne sëñ Muntaxa Mbàkke waxoon na ci dëkk bi ci lëndamaay bi mm. Touba ca kanam commencé dox ay tànk mm. commencé jënd ay lamp yaakaar naa li mu njëkk a def sax mooy euh, sensibiliser nit ñi kenn ku ne sa buntu kër nga jéem faa def ab lamp bi ñëwee ba année bi ci topp nag su bàyyi kanam commandé ay lamp lamp yooyu nag bi mu ñëwee euh, nañ ko recensement bu jaar ci yoon euh, bu guddi jotee dañuy préparé koñ bi nga xam ne moom lañu war a recenser su ko defee ñu jënd pompe yi nga xam ne moom la war a jënd ñu numéroté lampe yi nga xam ne moom la ñu a monter ndax quartier bu ne dafa am benn quota boo xam dañ ko ko dañ ko ko jagleel ci biir quota boobu nag bala ñu koo def dañuy xool ba xam ban quartier ndax boobaa dañuy toog ñu waxtaan réunion bi de kii commission bi day toog ñu revenir xool ba xam ban nan lañ mën def ba lamp ñu mën koo séddale ci biir dëkk bi ba kenn ku ne mën cee gis sa bopp euh, amee nag ñu samp ay ay ay ay yu ndaw yoo xam ne nii kenn ku ne dafa lu ñu la dénk lu ci mel ne recensement ñu dénk ko Mafari Ndiaye installation bi ñu dénk ko euh, sëñ Fallou Ndiaye mu def ci liggéey boo xam liggéey bi am solo la ak ndaw yi nga xam ne ñoom lañ ko àndal Euh, damay sant nag bu baax a baax ndaw yi nga xam ne ñi ngi ci terrain bi suba ngoon guddeeg bëccëg mm-hmm. ndax nag li ñu def yombut mm-hmm. ndax liggéey Serigne Touba bi Euh, am na dëkk bi am na yeneen ndaw yoo xam ñi ngi ci biir dëkk bi mm-hmm. ñi ngi ci leneen mm-hmm. ñun nag yàlla dañoo xiir ci biir Touba ci kanam ñu bëgg ko te Serigne Touba tax mm-hmm. moo tax lépp loo xam ni Touba moom ñi ngi ko soxla ñun ñu doon ndaw yi Serigne Touba ak lu ñu mën a am rek liggéeyal ñor suba ngoon guddeeg bëccëg ñoo ngi ci ndax nag buñ bàyyiwut li ñuy def ñëw jàppale dëkk jàppale waa dëkk bi ci dëkk bi yaakaar naa dëkk bi pour mu mën a jag nañ ko bëggee du mën a sotti ndax da ngeen dagg carte membre di teg 12000 bi année bi jeexee rek man ak ñi nga xam ne ñoom lañ àndal ci liggéey dañoo jënd suñ carte membre 5000 francs dagg suñu reçu 12000 francs jël ko dugal ko ci kees ba pare fas yéene jël li nga xam ne ñun mooy suñ doole ak suñ temps ak suñu te yëpp yëkkati ko jox ko seen Tuubaa te kenn duñu ci jële nag eh, ndax bi ngeen def commission yi añ mbirum añ da ngeen ko daan jëlee ci keesu Touba ci moom lañ jëm hmm. yow mii toog yow woo ka nga xam ne moom mooy eh, yilif quartier ba bu ko defee nga yëgal na ko waa Touba ci kanam ñu ngi fi ñëw hmm. su ko defee ñoom tam ñu def ci taxawaay bu am solo ndax koñ bu dugg daal wax dëgg fa yàlla Euh, duñu xiif duñu mar duñu def leen luñu soxla ñoom waa koñ bi dinañu kontil mhm. te lépp lépp ña koy joxe ñëpp dañuy jaayante sëñ Tuubaa tax mhm. Mhm. waaw jërëjëf euh, kon sëñ Xaadim dafa mel ne sëñ Xaadim jëm expert yéen yéen lañ sëñ Fallou Ndiaye àndaloon ci biir waar wi euh, muy ay xale yoo xam ne dañoo sawar di daw guddeeg bëccëg suba ngoon su guddee yéen a ngay recensé ci su bëccëgee yéen a ngay monté ana ban yëg-yëg nga amoon ak yan kàddu ngay wax ndaw ñooñu nga àndaloon waaw Baye Fallou yëg-yëg bi moom benn la rek mooy liggéeyal Serigne Touba rek mm. ndax ndaw yi nga xam ne dañuy xëy di bàyyi seen i yitte mm. ngir ñëw jàpp ci dëkk bi ngir dëkk bi mën a taaru mm. ñooñu moom dañ leen sant bu baax a baax di leen di leen ziyaare ndax nag def nañ ci liggéey boo xam liggéey bu am solo la euh, ndax nag bu ñu xëyee lu mu néew néew dinañ ma 10 personnes wala 20 personnes te bu wàccee Touba ci du leen jox dara mm-hmm. te liggéey bi dañ koy tàmbali 8 heures ba 19 parfois sax ñu dem ba julli timis te bu ñu julli timis ba pare dañuy takkaat laxasaay nekkaat ci recensement bu ñu xëyee ñu nekkaat ci hmm. kon nag ñoom te mënuñu leen ñàkk bañ a jaajëfal te mënuñoo ñàkk bañ a jaajëfal euh, sëñ sëñ sëñ sëñ président muy muy fàllu Ndiaye hmm. ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne gungee nañu ko ci liggéey bi hmm. ndax nag mënoon nañ ko jox liggéey bu mu téye ko Euh, xajaluñu ci waaye nag deful loolu dafa ñëw bàyyi ñëw liggéey bi lépp nañu ànd leen a gone yi ñu ànd ak ñoom di liggéey liggéey bi ba keroog muy jeex mhm. Mafari Njaay te mënuñu ko ñàkk may sant ci taxawaay bi am solo bi nga xam ne def na ko ci recensement bi mhm. ak Baye Mamadou Gadiaga mi nga xam ne moo toppoon ci moom mhm. ak gone yi nga xam ne ñëpp laal ñun ñoo bokk liggéey bi ak daayira ak daayira électricien yi nga xam ne doon nañ bàyyi li ñuy def ñoom tim ñëw ci biir liggéey bi ndax ñoom tim bàyyi nañ seen lépp ngir ñëw taxawu liggéey bi xam ne liggéey bi ñoom tamit am nañ ci part de responsabilité boo xam war nañ ko ca def macha allah jërëjëf euh, sëñ Khadim Dieng expert kon ñi ngi dalal ak sëñ Modou Samb sëñ Modou Samb yaakaar naa ne moo yoroon pompe yi sëñ Modou Sall moo yoroon pompe yi daan marqué ci guddi gi te yaakaar naa li muy marqué bu ko tàmbalee fu mu yem bu ëllëgee ñi nga xam ne ñooy monté si bu ñëwee marqué ba la ñu gis nañ ne ci biir montage bi yow Touba ci kanam fay da ngay waaye guddi gi da fanaanee daw di di di di doo eh, doo doo seet ànd ko ak sëñ Abo eh, kon yan ban yëg-yëg ngeen doon am ndax cawarte gi ngeen daan àndal daal yéem na ma. ok asalaamaaleykum wa rahmatullah kon ñu ñëw ci laaj bi nga xam ne sëñ Fallou moom la ñu laaj ñu ko koy nuyu baax te di ko siyaare suñu wayjur di nuyu Touba ci kanam nooru daal yëpp di jaajëfal baax suñu président leeral ñu ñëw tontu question bi rek mu gaaw ndax dana neex a tontu ndax euh, bi ñuy yëg-yëg bi ñu am bi ñuy takk laxasaay mooy Sëñ Touba la ñuy gis suñu kanam. Mm-hmm. te Sëñ Touba ku ne xam na ne boo ko gis sa kanam da ngay am xemmeet xemmemteefu daw dab ko. Mm-hmm. yëg-yëg bi ñuy daw ak suñu jaayante lépp sëriñ bi la ñuy fas yéene dab. Mm-hmm. wala ñuy bëgg a nuru nuru nuru lu lenn ci ay mbiram lenn ci ay mébétam. loolu moo ñu gën a sabab. dañoo poussé ñuy ànd ak yéen di recensement yi ba noppi di àndaat ak terrain bi sëñ Tuubaa daal moom lañ teg suñ kanam di daw di ko dab saa su te duñ ci taayal loolu daal mooy yéeg-yéeg bi dëgg dëgg dëgg xale yi nga àndaloon an yéen kàddu nga ngay seetlu ci ñoom ak loo leen di wax waaw laaj nga ma question bi tamit bu am solo comme ni ko suñ Xaadim waxee rek ñu ngi koy jaajëfal bu baax mhm. di sant yàlla bu baax di sant mbooleem nag ñi nga xamee ñoom la ñu àndaloon ci euh, waa leeral mhm. ndax gis nañ ci ñoom pas-pas gis nañ ci ne sëriñ bi rek moom lañ teg seen kanam bi rek lañ bëgg mhm. te gis nañ ne am nañu yaatu am nañu bëgg ci liggéey bi te ñu doon ay responsable leen ci fañ dëkk ak fi ñu nekk ak ci biir dëkk bi. Mm-hmm. bëgg koo doon nag it wax dëgg yàlla di ko jiim di ko def saa su ne te gis nañ ne ñoom saa yoo leen xoolee Serigne Touba nga gis seen kanam. Mm-hmm. te li ñuy def ñu man ko lool. moo xam électricien yi la moo xam ñi nga xamante ni ay membre Touba ci kanam lañ. Mm-hmm. dañuy laaj li Touba ci kanam di laaj dañ koy def. ba noppi wëlbatikuwaat di doxal liggéey Touba Ca Kanam bi ñooñu daal gis naa ne mm-hmm. ñu bëgg sëriñ bi lañ mm-hmm. di sàkku si ñëpp ñu ñaanal leen yàlla defal leen tawfeex ba liñ bëgg ci dëkk bi ñu amee ko ni ñu ko bëggee ci barke Seexul Xadim euh, jërëjëf sëñ Modou sàll jërëjëf sëñ Xaadim Dieng expert jërëjëf sëñ Abo Ndiaye jërëjëf bokk yi nga xam ne ñoom lañ àndaloon euh, di euh, Ibulaay <coughs> Ndiaye ak bokk yi ñu àndaloon yëpp mbokk yi lii mooy seen émission bi nga xam ne tey jii moom lañ leen jaglooloon ci ëttu murit ci daayira nooru daarini Touba Ca Kanam ci commission leeral mbokk yi nag may am foofu di profité di wax ne bu ngeen gisee poste de santé yi gis làmp yi gis tëli yi gis daara alxuraan yi lañ ciy def gis li ñuy def ci jàkka yi gis li ñuy def ci social na ngeen xam ne ñaar téeméer yi la mbokk yi ab murit war naa jomb weer wi dee mu jënd connexion jënd ay crédit génn dépense am ba noppi génn wut ñaar téeméeri sëñ Tuubaa yooyu nga xam ne mooy tax dëkkub Tuubaa bi mel ni Euh, madinatul munawara wala makkatul mukarrama bu ngeen fi gisee lu yàqu rek ñoo ko war a defaral lii ñuy def lépp nag ginnaaw boo xam ne daayira nooru daara ni tubaa ci kanam déggoo na ci ak sëriñ tubaa cheikh mahamadul muntaxa jaar ci ki nga xam ne mooy jëwriñam di di sëriñ siidi mbàkke mu cheikh abdoulahad mi nga xam ne moo fab maire bi teg ko ci loxol abdoulahad ka ñu waxtaan ak maire bi ay réunion yu bari ñu def kook ñoom ànd ak ñoom ci liggéey bi nañu xam ne nooru daare ni Touba ci kanam ak commune bu Touba ñoo ànd ci mbooleem liggéey yi yëgoo ci ak préfet déggoo ci ak Sénélec noonu lañ ci déggoo ak Cheikh Mahamadoul Bachir mi nga xam ne moo yore seen kàddu ndax ñun lu ñu fétal dañuy jaar ci aw yoon ndax sëñ Tuubaa nee na kuy fétal fuy fii rek ngay mujjee kon lii lépp nag dañ koo tënk foofu def ko fi waaye may fàttaliwaat bokk yi ne ñi sahaaba yi jaayante woon joxe seen bakkan sahaaba yi jaayante woon joxe seen i alal nañu xam ne ñooy sunu baay ci diine ñooy sunu baay ci diine te am na xare boo xamante ni bii ba ñuy jaayante Seydina Ousmane ba mu ñëwee alalam jëpp la joxe moo tax suñu borom subhanahu wa taala tagg ko ay tagg yoo xamante ne bii nee na sabhiina alfan wa kullun haqquhu naaru suñu borom may na ko dana ramm juróom-ñaar fukki junni yoo xamante ne bii sawara yaaye leen dara waralu ko lu weesu foofu alalam def ko ci yoonu yàlla kon eh, eh, bu ñuy wax dëgg dëgg dépense sa alal ci yoonu yàlla mooy jox sa alal koo xamante ne bii du yëg ne yaa ko ko jox te loolu mooy daayira Nuuru Daarayni Touba ci kanam soo joxee sa ñaar téeméer bu ñuy def lampe ba ca gede waa gede duñ yëg ne yaa joxe ñaar téeméer yi bu ñuy def forage ba ca Madiana duñ ko yëg bu ñu def poste de sant ba ca Lansar duñ ko yëg bu ñu defar tëli ba ca Ngiraaneen duñ ko yëg loolu mooy li ma joxe dama ko joxe te bàyyi sama bopp ak yàlla kon murit yëpp nañ àndandoowaat jaayante def seen yitte ci daayira noonu daara ni Touba ci kanam ngir mën a jëmee dëkkub Serigne tubaab yi ci kanam noo ngi leen di sant di leen gërëm seen bokkum taalibe Fallou Galass moo àndoon ak yéen ci wàllu micro bi di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal boppam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu